c'est-à-dire jaraaf bu ñu la déggee ngay wax c'est comme si que tout va bien tout est rose. non non bàyyi ma ma ñëw. Euh, parce que yow li ngay li nga c'est-à-dire bu la déggee ngay wax sa argumentaire c'est comme si que lépp a ngi dox lépp a ngi lépp a ngi ci raay yi. yow euh, lan lan ngay reprocher gouvernement bi actuellement ak situation bi nga xamante ni ci la ñu nekk lan mooy si seen part de responsabilité. ci lan. ci ci situation bi ñu nekk. situation ban ci. nekkuñu situation crise bi ñu nekk nii. mais non suñ part de responsabilité mooy ñooy gérer kuy gérer foog nga am responsabilité. kon tout va bien les responsabilités les responsabilités sont partagées bu crise amee il faut nga am sa part de responsabilité Aïcha kenn newul ne tout est rose non sachant que ne lépp doxul moo tax le président de la république mi nga xamante ne nii moo war a jël ses responsabilités mu jël ay responsabilités appelé au dialogue il a tendu la main à toutes les forces vives de la nation ñëw leen ñu waxtaan un bon démocrate voilà pourquoi mu woote ko c'est parce que xam ne tout n'est pas rose kenn waxul ne tout rose mais nag xam nga lan la ñu war a wax hmm. te muy dëkk que mu ngi liggéey li mu war a def mu ngi ci boolewu koog caaxaan boolewu koog coow boolewu koog benn détail focus ci li nga xamante nii muy soxla askan bi di jaamu soxla askan bi ci loolu la président. léegi li ñu nekk ñu nekk ak moom te nga xamante ne dañ leen di jiiñ affaire malversation nag ñu nekk ak moom. ñu ko moom ci boppam moo fi teg ay organe yoo xamante ne nii pour loolu la. mais d'accord ngeen defaguñ dara mais ma ne non dama ne dama ne dama ne il faut que ñu nangul président Macky Sall quand même euh, def lu baax engagement yam pour def lu baax résultat yi nga xam ne nii. effort yi mu def moo tax ñu am ko il faut que ñu reconnaître ko ko dafa teg ay organes pour loolu noonu ngay wax. ok d'accord bonne ko boole ci biir programme am PSE.